salaamaaleykum mbokk tund jandeer salaamaaleykum mbokk kër mbir waaye tamit dañ naan salaamaaleykum mbokk Sénégal ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay nee naa fii ma taxaw nii du ma ne guleet ndax dama fee ñëwoon taxaw ci open press bi nga xam ne Tony Junior defoon na ko bii passé ñu dem ànd ak moom mu am ndam dellu siwaat fii nga xam ne mooy tund jandeer dellu siwaat fi nga xam ne mooy kër mbir tey boo tuddee tund jandeer wala nga tudd kër mbir tey da nga fiy fekk ay champion yu mag tey Tony fii la yeewoo waaye boo tuddee turu Jendeer da ciy boole Kayaar ñoom Libidoor ak ñoom Njam Téeri ay satu falan ñëpp ñëpp fii la ñu tey kon Tony mu nekk grand champion te dama leen doon wax li ma leen daan wax rek laa leen di wax nee naa leen Tony Junior mi satu Abdourahmane Ndiaye falan la te na ko làmb bàyyi xel ndax daa bokk ci làmb waaye balaa damay def bés sama baaraam foofu tuuti ma bàyyi Tony mu nuyoo ba pare ñu doog a ñëw Tony maa ngi lay nuyu. waaw bisimilah. ginnaaw sant yàlla julli si sa julli si di nuyu suñu yaaru waajur di ñaan yàlla ñu fekk seen njëriñ di nuyu assistance bi teew fii yëpp rawatina presse bi di nuyu mafia Tony Junior fépp fu waay jóge rek pour bëggee Tony Junior ñu ngi lay siyaar di la ñaanal jàmm di bëggee nag rawatina waa commune de Notto Gouye Diama ñu ngi di siyaar di nuyu monsieur le maire Maguette gis nañ taxawaayam lii du gan si ñun parce que depuis ba avant mu nekk maire ba tey day jàpp suñu mbir te saa buy ñëw ak yitte boo xamante ni day kawe lool kon tey bu defee lii dañ koy gën a remercier bu baax a baax a baax di démarre commune de Morola di nuyu Yves Lamine di ko woo si combat bi mu ñëw jàpp si waa Morola yëpp ñu ngi leen di woo di démarre commune de Kayar Gas Ndoye ñu koy woo tamit mu ñëw jàpp si combat bi di dem commune de Diender monsieur le maire Assane Ndoye tamit ñu ngi koy woo mu ñëw jàpp si combat bi. parce que Tony li nga woote. Tony Junior nekkul Tony Junior bu Kër Mbir nekkul bu Diender Tony Junior international la. instant bii ñiy bëggee Tony Junior ñoo bëri di bëggee ñëpp fépp fu waay jógee tey. ngir Tony Sior ñu ngi lay siyaare am na ñu jógee ba Kaolack ñii ba fu ne fu nit jóge na fa kon ñu ngi nuyu ñëpp di jéggalu dérangement bi bu baax a baax di tuubaat bu baax rawatina waa koñ bi ñàkkul ni am na ku feebar ku fi ne ñu ngi koy jéggalu di ko baalu a bu baax a baax a baax xam ni yëfi gone la rek euh, mais ñu ngi nuyu ñëpp di siyaar ñëpp. ñu leen di wax Tony jëm arène nationale le 15 janvier ci bésu Zarko ak Ada Fass Tony war cee daje ki nga xam ne mooy bébé guy mu nekk làmb joo xam ne Sénégal yëpp ko bëggoon. ñu topp Tony bébé guy gi ku kuñ ko wax ñu ne làmb ji Tony la ak bébé guy gi Tony def huit combats huit victoire bébé guy gi def huit combats huit victoire ñu dem dégg micro ki nga xam ne mooy bébé guy gi mu ne Tony maa koy déggloo muñal waaw yàgg mbër yàgg naa wax loolu mais ñun li ñu gëm mooy bébé guy gi lenn rek lañ seq bariwul temps bi bariwul deux minutes la du ko yàggal incha allah ma jàpp ko duma ko daan ko cooli fi dafa sori. coow li ngay gis fii yëpp ak wax ji yëpp amaana daxa jige ay mbokkam di wax rek mais wóor nañ nit wóor na bu soobee yàlla dañuy duma bébé guy gi daan buñ suñu àjjana leeroon ñu dem feneen taxuñu sax jóg. nee na boo gisoon bés bi bu def ak ki nga xam ne mooy pokola doo ko jóg. waaw nga ay pokola lay wax ak keneen ak keneen Tori Jor daan na ku ne man ruus naa di daan nit diggante moo ruus naa loolu. parce que Tori Jor dafa ñàkk ñaan yàlla nekk roi des arènes te si bu xeexee ma duma ko bu bëree ma daan xam na mais est-ce que Tony xam na adversaire bi mu jël ku xam Bébé guy Gui xam ne bërikat la Tony macha allah yàlla may na ko ci bëri waaye ku xam ne Bébé guy Gui xam bërikat la te xeexkat la te ñoom dañoo am fu ñu leen bàkkal nee na mbëru simple du xeex. en ñun xamuñu lu moom xamuñu lu man xamuñu lu muy indi ñun li ñu wóor daal mooy li Tony indi mais li liñ leer ba leer mooy le jour si du bëre du xeex ñooy xeex ñooy def lépp incha allah. Ah? sant ñu ko dara na ñëw na ñëw taxaw rek incha allah bu taxawee ma duma ko bu bëree ma daan gëm-gëm boobu laa am te du mu sa sensé. damaa dajeeg moom arène nationale mu ne ma Ami Collé neel Tony koo fonk lool nee na bu jëree mu jaay bakkanam tey mu jaay bakkanam bakkanam la ci teg. dinaa ko dinaa ko daan ta bakkanam incha allah loolu lépp ay wax si dinaa ko daan ta bakkanam du wadd incha allah. nga daan bébé bu la ëtt boobu la ñu am. combat bi fi mu ko teg nee na yow tegoo ko foofu noonu. nee na moom doomu njaagu pire la. ñun nag ay sëtu Abdourahmane Ndiaye Falang ñun amul lu ñuy ragal si àdduna ay lëbu amul lu ñuy ragal ay lëbu pire la. di nuyuwaat sama mafia njaago bi parce que mën naa ni njaago yi ëppale ñu parce que ñun dañ see am wàll bu baax a baax a baax di nuyu njaago yëpp di leen woo si combat bi ñu jàpp si incha allah guy yi la am te incha allah dañ koy daan huit fee incha allah fee bien fee. maa ngi lay siyaar ba. non daa amul adversaire yu mel ni Tony Jor mais koo xamante ni xaarul kuy bëre kon bu gisee kuy bëre day gën a neex ak incha allah bu bëree ak Tony Junior si kattan suñu borom duñ bëree une minute man maa la wax lii. li ñu war a liggéey yëpp liggéey nañ ko suñu staff en tout cas euh, ñu ngi waajal lépp te la 15 yàggatul mën naa ni mooy jours yi mooy 4. Euh, jaratul ay wax li tee ñu bëre bareetul ci kattan ñu suñu lépp lu mu andi dina ko fekk incha allah te gisagul mbër mu duma tooni si yoon incha allah. waaw ñun nag duñ fa gan duñ fa gan parce que dem nañ fa demati fa demati fa xam nga gis na nii def stade bi di taaral stade bi macha allah samay fan sa li ma leen dëkkee wax laa leen di wax nee naa leen bu leen coow bu leen xuloo yor leen seen ndox ak seen kaasu café di naan ndànk di dal ndànk damay daan léegi sa kii nga paako. Tony beneen la guy gi nee na combat yi nga am yépp heure boo bëree bu la nit songee attaqué la xeex samp jaaga nee na da ngay ñëw mamm yow mbër boo xam ne da ngay mamm nee na sa digganteeg Jackson li nga def foofu noonu boo ko ko defee say mbokk lëng. yàlla baax na en tout cas le si daal ñun dinañ ñëw ak li ñu war a àndal liggéey nañ li ñu war a liggéey ñun ak suñu staff mais taxul ñuy wax ay lii ak lii ak lii bébé guy gi incha allah loolu lépp du fa àgg li Jackson am sa du ko am. 8 fee bien fin du yàgg. kon bu xeexee ma duma ko. bu bëree ma daan ko. Ah! man di bëre man di bëre. waaw dañuy siyaare bu baax di sant ñi jàpp si combat bi bu baax a baax di woo tamit ñi si jàppagul ñuy jàpp si bu baax. rawatina mbokki kër mbir ndaw yëpp ñu woo ñëpp képp koo xamante ni yaa ngi taxaw si combat bi nga gën a taxaw bu baax a baax di nuyu waa diaspora jàpp nañ si Cheikh Lay Touba Serigne Aïssa borom Pikine maa ngi koy siyaar bu baax Cheikh Siré Aïssa di nuyu Aïssa tamit jàpp na si combat bi Assane Fall jàpp na si combat bi Ngoura Niang jàpp na si combat bi Ismaïla Lo jàpp na si combat bi Mor Lo jàpp na si combat bi Cheikh Baye Fall borom Espagne jàpp na si combat bi Ibou Ndoye borom Cëddeem jàpp na si combat bi Serigne Baye Ndiaye Pagala jàpp na si combat bi Al Maktoum na kenn du moom moom ndeysaan léppuy Tony moom la moom ñu ngi koy siyaare di ko ñaanal jàmm à chaque fois parce que gis nañ taxawaayam si si Tony Junior di nuyuwaat tamit euh, góor a Diop jàpp na ci combat bi bu baax euh, Samba Faye jàpp na ci combat bi bu baax Makura Diop jàpp na ci combat bi bu baax Mohamed Ciss jàpp na ci combat bi bu baax Dóor Lo ñu jàpp na ci combat bi bu baax a baax Ablaye Sall Njambe jàpp na ci combat bi euh, Matar Gueye tali weex waa tali weex maa ngi leen di bégg bu baax gis seen taxawaay gis naa li ngeen di wax nag mais Tony Junior Tony Junior international la Tony Junior Tony Junior ñun fu ñu tudd rek xamal dañoo jub mais tali weex suñ dëkk la tey suñ dëkk la suba fa lañ dëkk te sañ leen faa ne kon nag bu leen ragal dara génn leen ñëw ñu dem ci combat bi incha allah def defaral di nuyuwaat bu baax a baax diaspora wa grand góor a grand Samba ñu ngi koy siyaare bu baax Alaaji Fall Alaaji Fall ñu ngi koy bu baax a baax El Matador maa ngi lay siyaar di la ñaanal jàmm grand ma ñu ngi koy siyaare bu baax a baax ñaari yaar ñu ngi koy siyaare bu baax a baax Ibrahima Thiam borom Morok ñu ngi koy siyaar bu baax Ibou Thiam jàpp na ci affaire yi bu baax waaye nag Birane Ndiaye kenn du moom Birane Ndiaye moom xoolul bëtu Tony Junior xong yàlla xam na ni kooku li may defal sax man mënuma sax tudd di ko wax mais maa ngi koy ñaanal yàlla lépp lu mu song yàlla na ko yàlla jàppale moom Birane Ndiaye maa ngi siyaar bu baax di bëggee sama sama waa Malika sama mafia bi nekk foofu maa ngi leen di siyaar di leen ñaanal jàmm bu baax jatu protéine borom protéine yu baax yi maa ngi la siyaare gis nañ sa taxawaay euh, gay mbé nga gis nañ sa taxawaay jàpp nga si bu baax aada gay càmm moom it kenn moom ñu ngi koy siyaare bu baax aada gay càmm sa taxawaay gis nañ tamit li ngay jàpp ngir Tony ñu ngi lay siyaar di la ñaanal jàmm bu baax a baax aada gay càmm waaw di siyaare waat tamit euh, maam Samba maam Samba Baal nootoo guy jamaa jàpp na si bu baax a baax Fallou saw nootoo tamit jàpp na si bu baax di woo tamit ñi jàppul ñu ñëw jàpp si combat bi parce que xam nga booy bi ñuy bëreel dafa bëri wax te dañ ko war a defaral incha allah mafia sareet yi mënu ma leen a fàtte parce que gis nañ seen taxawaay ñoon moor ñoon moor moor laay jox kii bi mu séddaleel ma nga ñëpp rawatina fan sa club Tony bi li ko commencé feeraay ba yëpp tey nag faa ma tudd sama sama gox dëkk bi di tudd waa Kër Mbir Ndaw ñu ngi leen di siyaar di yéen woo si combat bi waa Ngajaga sama dëkk ñu leen di siyaar waa Kéeri jël ak pël olof waa bërëb waa nootoo kuy jëmaat di nuyu ma fi yaa ba fa ne ñoon Moussa Laye sama fan sa premier fan Moussa Laye di wax nga jàllaleel ma fan sa yëpp waa sëgal waa sëgal maa ngi leen di siyaare bu baax waa bërëb waa waa bërëb waa waa saaw xam waa ngiij di bëggee ñëpp daal ma fi boobu yëpp ñu ngi leen di bëgg bu baax a baax rawatina waa waa waa waa waa dëkku di yow Kër Malal waa Kër Malal ñu ngi leen di siyaare bu baax rawatina waa dàgg laa séeréer si Pambal Babacar Tine borom laxaat Babacar ñu ngi lay bégee Serigne Ngoone ak Adama gis nañ sa taxawaay bu baax a baax a baax di nuyu waa Toor waa Mbijëm waa Mbijëm ñu ngi leen di woo bu baax a baax rawatina waa Kimaay waa Tali bu Weex waa Ngiij waa Kër la Diop xam nga bëgguñoo fàtte fenn waa Cëddeem waa Ndaam xam nga waa Bayax waa Njar xam nga Njar Tiijaan Njar Murit xam di nuyu ñëpp ba Kayaar Béer xam nga di nuyu tamit waa Daara cinquante waa Kër Sega di nuyu Kër Muse suñu papa Maniru Ndiaye ñu koy siyaare bu baax di ko di ko wax ni que mu def nan daa def incha allah waa Kër Mousse ma fiyaa tuuri boobu yëpp ñu ngi leen di fay di siyaare waa sëgal bu baax waa sëgal gis nga ku si mel ni grand mbaykan gis ngeen taxawaay bi mu am tey dama ruus sax xam na loolu mu nekk nit ku am yéeg-yéeg sama doomu day Codé moom léppay Tony Junior la guy gi gañ gi ñu koy siyaare bu baax ngañ waa sëgal daal képp koo xamante ni yaa ngi jàpp si mbiri Tony ngi leen di woo waa saaw bàyyiwuñu kenn en tout cas li pour ñu dajal daal ñu ngi nuyu waa Cëddeem xam nga waa waxal. ñëpp di baalu ñëpp àq waaw waa war jaxal mënu ma leen fàtte waa war jaxal. cere jaara laal yoon. laal yoon xam nga cere jaara yow. mais laal yoon da am lu xew léegi jaara mënatul. mënatul de Issa yi cere faatu la ñëw faatu. Oh, faatu ñëw na faatu. Fatou ñëw na jële fa jaara kon tamit di leen nuyu wax waa war jaxal baa bàyyiwuñu kenn ñi sonn si combat bi Modou Daba xama waa Belew ba xama waa Gañik waa waa waa waa Likeem waa Ngexoo xam xama di nuyu ñëpp Colobane commune de Kaolack bi yëpp ñu ngeen di siyaare bu baax bàyyiwuñu kenn daal ñu ngi nuyu ñëpp rawatina commune de war jaxal bi njëkk Babou Ngom ñu ngi koy siyaar di ko ñaanal jàmm gis nañ ba affaire bi taxawee ba tey taxawaayam gis nañ ko bu baax waa a Kocc Roy gis nañ sa tawaay baax Jibi Seck yal na la yàlla defal jàmm may sa ñaan coach may sa ñaan coach di siyaar ñëpp Omar bu Baye Karim ñu koy siyaar bu baax a baax ba ndax kenn du waa si internet nee na lépp lu nga xam ne daa làqu rek ñoom ñoom ñu ci kon mu ngi noonu jërëjëf